voilà léegi tendance bi man dama jàpp ne muy wane nii xeeñu lu neex ci côté Benno Bokk Yaakaar. no xeeñ na non lu muy xeeñ amagu fi man pour man man je suis nan xaar résultat yi gën man xam naa ni li li président liggéey ci réew mi du mun la nax saay campagne bi sa tête de liste muy Mimi Touré ak deuxième tête de liste muy Amadou Ba. daf naan liggéey liggéey nañ li ñu waroon liggéey de. mais nag ñoo ñoo ñoo gën a tax ngeen am carte xam nga li tax. Hmm. ñooñu dafa am ah, waa APR dañ leen doon topp rek mais bëgguñu leen dañ lay topp jiital la di la fakastal. Hmm. parce que président Macky Sall moo leen jël mais comme ay loyal lu ñoom ñoo doon fakas ñoo ñoom ñoo doon fakastal sax ñooñu lu ne ñu koy wax. un Ba mu perte parcelle c'est pas la loolu du guddee ci moom non c'est xeex bi la xeex xeex bi ñuy xeex ci seen biir parce que suñu taxawee nii dañuy mel ni ñu ànd nekk benn ndekay ñu ngi gor tànkam du leneen tey sa ndeysaan sama xarit bi Boun Abdallah Dionne bari gi mu nee naa président Boun Abdallah xaw ma foo ko jëlee mais soo amoon ñett ñu mel ni Boun Abdallah mën ngaa tëdd nelaw parce que moom au moins il est loyal mais lu ne def nañ ko ko fi feebar loolu lu ne def nañ ko fi. gaa yaa wax dèjà président Macky Sall mën na préparer ay bagages am. non ban parce que dèjà bu perte élection yi bu amul majorité non non mais du ko perte. loolu dafay wane ne non non du ko perte Sénégalais yi wan nañ ko ginnaaw war nañ ci moom jarul du ko perte tey fi mu ne Angleterre ak ne perte nañu majorité ba tey France bërki démb. Macron dafa majorité. presque am na majorité mais c'est pas une majorité. non dama ni dama ni majorité léegi ci Sénégal àddina bi ak bul yi moo tourné mais ñàkk majorité taawul nga gouverner. Mhm. te ñun xalaatuñu ñàkk majorité. man kay li may euh, wax mooy Macky Sall ñi moom nan loyal ni Boun Abdallah Dionne loyalé woon. mais est-ce que du pré ñooñu wër président Macky Sall ñoom la Sénégalais yi bëggul. ñooñu ñi ñi nga xam ne ñoo koy représenté ci département yi ci commune yi ci biir réew mi. non non parce que parce que dafa bëri arrogance parce que ñi koy ñi koy mooy li ma la wax. ñi koy représenté ci département yi commune yi ci àll bi ñoo loyaalu ñoo jéwul le jeu ak askan wi ñooy nax ñoom askan bi di leen nax seen bopp rek moom lañ fi nekk seen poche lañ fi nekk. est-ce que loolu kese la tamit parce que dund bi metti na cher na. gis oh, nañ président defu ci bon defu ci jéego mel na ni moom lu nit ñi di dund ci ci cher bi nii jox maire yi duñ fi liggéey liggéey fi dara mais mais euh, wax ji nekkul foofu xol mooy nit honnêteté mooy nit Kandé hmm. xol mooy nit mais mënoo ñu dénk la dara yow ba bërki dem yore woon dara nga ñëw rek mel ni kuy giiroo mel ni dem bu jëfur di xëccoo bu def say poste bàyyi ak président amu ci benn responsabilité def mais résultat opposition bi am na ko ci kawam et pourtant y a des cadres y a des jeunes yu fi nekk mën liggéey bi nga def mais dañ leen a xeex ñooy xeexante xoolal ñu xeexee un Doudou Ka à Ziguinchor xoolal Ablaye Sow dafa dëgër fit ba mu am fitu boppam ak fulla ak fayda boppam ak Kaffrine moo tax sax mu moo tax sax ba pare mën a ñefe un Khafor Touré à Guédiawaye un Cheikh Ba fii à la Médina mais ñoom ñëpp dañ leen bëgg a nekk ay nulaar na toog fi di yàqal Macky Sall toog ca biir palais ba di ko di di ko wax di ko jënd loo fas yaa biir ca duñ ko guble luñ ko wax ci waxi nax la kenn nax Macky Sall mooy jéem a nax réew mi yëpp yàqal réew mi tey Touba nee nañu Touba mais man dégg naa sànq koy wax ni Touba non Touba lay Wade ko moom mais Touba euh, sëñ Mountakha ko moom waa ah, mais taxul ñu wooteel. waaw non ah, falaa jëm. te xam nañ ne mais falaa jëm. nga xam ni kon malhonnêteté weesuwul ci certains habitants de Touba wala ñoo xam ne dégg nga man parce que man Ablaye Wade du ma gën a Serigne Mountakha hmm. man Serigne Mountakha du joxe ay directives joxe ay ñaanam may ànd ak Ablaye Wade wala may ànd ak Gaston Mbengue wala may ànd ak kenn. kon ñoom Serigne Mountakha